papa euh, ñu gis ni jaari euh, Sow nekk euh, mair élève fii nii Sénégal ñu gis ni dafa def disparition kenn xamul ci lu mu nekk ñu ne la lan nga gisee lool. waaw Diary Sow de fu mu mënta ko nekk maa ngi koy ñaanal mu nekk si jàmm ak salaam di ko ñaanal tamit ay waajuram ñoom ñëpp ñu nekk si jàmm ak salaam Sénégal yi nga xam ne ñoo fi nekk di ay naataangoom di ay étudiants tamit ne si jàmm ak salaam mais maa ngi am tuuti foo xamante ne mérénage yi étudiants sénégalais xaw ma yëg neen Diary Sow dafa disparu xaw ma yëguñ Diary Sow dafa disparu mais lu ci mënta ko xew comme ñoom rajo yi wax nañ ne Diary Sow dafa disparu rek ñoom war nañ na am benn geste boo xam ne war nañ koo def nit ñi wane na Diary Sow dafa disparu mais étudiants yi xaw ma cinq personnes la xaw ma six personnes ñoo mer ñoo mer dem doxu ñaxtu après jeex na jeex na quoi. bon histoire Diary Sow man moom fi mu ne nii déception bu rëy laa si jëlee quoi parce que fi mu toll nii bu ñu demee ba naan diw mooy xam nga mooy meilleur élève ci concours général fii ci Sénégal. amoo ñu toog ay temps kenn xamul ci lu mu ne waroon na mën a gindi sénégalais quoi. parce que presse bi def na liggéeyam ku ci nekk wax presse en ligne wax na ci presse écrite wax na ci mais bu toogee ba tey suba ñuy dégg ci euh, à travers la presse ñu naan envoyé na son tuteur euh, euh, benn message di ko naan mu ngi ci jàmmo loolu man déception bu rëy laa ci jëlee quoi mënoon mënoon nañu teel a libéré quoi comme ça su ko defee ñu génne suñu xel quoi. mais dem ba euh, ba affaire bu jël empleur nii nga jëkk jékki envoyé benn mail wala benn SA euh, benn message euh, Tito di ko naan boo di ko naan maa ngi si jàmm maa ngi si man daal déception bu rëy laa jëlee quoi franchement parler. waaw affaire jaari soo bi tey bu dee li ma dégg média yi moom la ñuy wax démb ak tey mooy man d'accord ma si li mu def parce que bu dee moom dafa nekkoon Sénégal di jàng nekk fi meilleur élève état Sénégal jël ko yóbbu ko Europe pour mu dem eggale jàngam loolu su ko état Sénégal defee mooy. pour mu jàppale ay doomu réewam la mënoon na ko bañ a def parce que fii na boo yoo xam ne tey jàng nañ bam seen yenn diplôme génn ñu Sénégal kon tey su état Sénégal demee ba jël yenn sart yi dem di ko yóbbu moom su demee ba nga xam ne yóbbu nañ ko mu dem ba foofu noonu gis na loo xam ne yàlla dafa def changement day am si diggante bi mooy mun na bind état Sénégal wala mu bind ay parents na leen ah man kat ñëw naa fi waaye dama bëgg a def néeg ak nii su boobaa solution dina am quoi waaye ni mu ko defee man vraiment man d'accord ma si. man Sénégalais laa comme moom waaye affaire bi dama metti woon parce que dama am doom bu jigéen su doon sama dooma noonu laay réagir day metti waaye bi ma déggee affaire bi information bi mooy am naa lu ma metti trop te moom ni mu ko defee te lii day tax état Sénégal du mën a mënatee jël benn mesure di yóbbu doomu jàmbur Europe tey muy jàng parce que su amoon problème tey xam nga ku ñuy wax état Sénégal la ñuy wax. vraiment loolu neexul sama que man am doom bu jigéen day xool si étudiants yi rek parce que àdduna bépp pour man ay étudiants ñoo nekk si dëkk bi bu dee moom am na fu mu nekk wala dafa am ko téye moom na wax quoi parce que ay waa juróom lekkatuñu naanatuñu nelawtuñu ba si ay famem waaw instant yi benn étudiant sax instant yi ñëwetul génn ñii jàpp lañ ko ki kidnappé ñii jàpp dafa am fu mu nekk bu dee am fu mu nekk na wax rek moo gën moo gën a rafet quoi. si solon selon si man bon am na am na lu si am na lu si lu lu si lal quoi. parce que nit du jékki-jékki rek xam nga rek ñu ne def na lii wala wala dafa dafa jékki-jékki rek fàq xam nga parce que loo gis rek am na lu am am na lu ko am am na lu ko lal koo xamante ne mooy mooy mooy suñu mooy suñu mooy suñu mooy suñu kii si loo xama am na mooy mooy loo xamante ne mooy doon loo xamante ne dina dina jëriñ euh, dina jëriñu Sénégal mooy maanaam meilleur élève dafa jàng ba mu ba mu am ay diplôme am vraiment kooku man solon si man dañ ko war a teg si condition yu baax ci tamit ñu gis ne mu def communication bu bari ñii ñii ñii naan dañ koo na kidnappé ñii naan dugg na fee ñu yaakaar est-ce que loolu amul lu nekk ci biir daal. waaw man loolu ñuy wax noonu sax man naa ne Sénégal moom xam nga des fois li ñuy wax li ñuy wax ak lii kii des fois du bokk. waaw waaye man lettre bi moom ma xaw a jaaxal mooy lettre bi ñu ne moom bind na ko te ki mu ko bind tamit mooy kilifa la si réew mi man loolu moo xaw a dal sama xel tuuti quoi waaw côté boobu daal laa xaw a contrer tuuti quoi waaye du dara vraiment. waa disparu Diary Sow bi li nga wax tamit vraiment daw na yaram trop trop trop mu ngi mel ni rek nit koo xamante ne da nga am sa doom mu réer ci mbedd mi nii fi la gisoo ko rek doo am jàmm comme Diary Sow fi mu toll nii doomu sénégalais yëpp la meilleur élève étudiant boo xamante ne nii sa mooy président décoré ko première dame décoré ko ñeneen ñeneen décoré ko ba jëlal ko fayal ko bourse mu dem France di jàng ji mu disparu depuis deux mille vingt ba deux mille vingt et ba léegi kenn xamul ci lu mu ne vraiment fi mu toll nii. même ku dul papam wala yaayam sax yow nekkoo ci jàmm actuellement parce que moom rek ngay xalaat parce que mooy doomu Sénégal la waa drapeau Sénégal la fa nekkal Sénégal moo ko fa yóbbu kon bu disparo même bu disparo tamit fu mu mënta nekk daal mën na leeral nit ñi ne maa ngi ci jàmm nit ñi am jàmm ku ko xamul koo xamul yëpp tamit seen xolam dalut xelam dalut. waa xam nga moom magum jëm la moom fu mu dem rek moo voté boppam pour man parce que nee nañ xaw ma am lu mu joxe benn naan mu ngi ci jàmm mais bu nekkee ci jàmm na génn. mais est-ce moom mi ngi si jàmm moom est moom moo génn moom bu def vidéo ne maman yaay sénégalais yëpp maa ngi nii maa ngi si jàmm foofu gali xel yi mun nañ dal mais jékki ñu envoyé lettre boo xam ne naan mi si jàmm loolu wóorul de man. sama euh, da nga jàpp loolu dalu sa xel quoi. Ah, man dalu sama xel parce que man bu doon man la damay génn damay génn devant tout le monde ma ne man jaari saw maa ngi nii maa ngi si jàmm dama am fu ma nekk mais jékki-jékki ñu envoyé benn lettre maa ngi si jàmm ah man man loolu man bu dee man ak man man sama xel dalu si loolu quoi. non kidna kidnapping bi mooy mooy bon mun nañ mun mun mënuñu wax loo xamante ne si wàllu kidna kidnapping parce que bon ba léegi amuñu loo xamante ne lu leer ah si affaire de kidnap kidnapping li nga wax ni pour pour kidnapping kidnapping bi amuñu lu leer quoi comprendre duñu wax ni dañ ko kidnappé xam nga alors que parce que moom tamit mun na mun na nekk si yeneen anam yoo xamante ne yu anam anam yi critique yoo xamante après moom day dem à la fin day jaaxle après mu dem mu jékki-jékki rek euh, indi indi indi jafe-jafe euh, indi indi jafe euh, boppam yooyu yëpp mun na am comprendre nga parce que nii nii nii nii kenn amul si preuve boo xamante ne ñu ne kii gis nañ ko fu ñu fu ñu koy kidnappé. ñu gis ne dafa bind lettre envoyé ko Serigne Mbaye Thiam ñu lay laaj ba xam loolu noonu dina dalal xelu sénégalais bu baax. bon mun nañ ne lettre la bind kenn xamul bon si c'est avéré ou si c'est pas avéré. parce que mail kese la envoyé xaw message la envoyé Twitter bi ne ko maa ngi si jàmm sénégalais na seen xel dal mais jusqu'à la preuve du man daal tant que teguma ko bët moom bon duma ma gëm ni eh, moom moo moom bind wala moom moo bindul eh, bindul quoi waaw man sama xalaat bu gàtt waaw loolu lenn rek moom mën a am mooy sëñ Bay Thiam mi nga xam ne moom la bind lettre moom rek su yàlla defee jàmm mu nekk si jàmm moom tey mën na génne Séné mën na génne Sénégalais yi bu dee loolu am na. bu dee loolu am na sëñ moom rek moo mën a gindi sénégalais yi que man yaakaar naa du lettre boo xam ne dañ koo traduire ci keneen ak yooyu man daal sama xel loolu la ma jox. Eh, jàpp nga ne loolu lu wér la. mooy ci lettre bi. waaw ah, pour man jàpp naa lu wér la waaw sama xel daal xaw na daal kon ni ma tiiti woon bu njëkk sama xel xaw na xaw na daal tuuti quoi ne mi ngi ci jàmm rek alhamdulilah waaye daal ni mu ko defee daal man kontaanuma ci quoi. waaw Serigne Mbaye Thiam moomu moom ci boppam mën a taxaw tamit comme lettre bi nee na Diary Sow moo ko envoyé en tant que moom la moom lañ ko bayale na taxaw carrément tamit wax ci média yi wala mu wax ci télé yi wala mu wax ci sama internet bi ne Diary Sow moomu yónnee lii mu ngi ci jàmm moom itam vraiment comme moom lañ ko bayalee war na ci bay waar wu rëy rëy boo xamante ne ni Sénégal yi ci ginnaaw den xam ne lii kat Serigne Mbaye Thiam moo ko def ci waa ci Diary Sow waaw moom tam war na ci am part de responsabilité leeral doomu aadama yi wane na Diary Sow si boppam mu ngi ci jàmm waaw mu wax Diary Sow tamit ne Diary Sow fii la nekk wala faa la nekk ñun nen comme sénégalais la comme ñun doomu sénégalais la dem na fa lu jàng ji yàlla dogal ñu yóbbu ko fu nekk meilleur étudiant na leeral sénégalais yi ne sa mooy jaari sow mu ngi ci jàmm moom Serigne moom Serigne Thiam moomu. loolu war na nañu sant yàlla macha allah parce que koo xamante ne ñu ne ñii laam naa kii dafa réer kii dafa dugg fii da ko dugg fii moom mu moom mu ne mu bind mu ne franchement parler muy muy à se trouve à l'aise franchement loolu moom ñu suñu xel war war na dal bu ñu bu ñu déggoon ñu ne dafa dafa dañ ko dañ ko agressé wala ñi ñi jàm ko wala ñu def lool ñu def ko loo xamante ne naka sulul noonu la sénégalais mun nañ jóg ah manifester si loolu noonu mais comme que moom wax na ne mën a mooy si jàmm loolu moom vraiment sant yàlla la quoi. man vu que li may liir ci presse bi ak li may déggul ci journal nu ñuy relayer information bi xam euh, mun naa wax ni presse sénégalais nga ci gàllaama parce que chaque jour que Dieu fait affaire d Diary Sow nañu wax. te jamono bu ñu toll nii am na sénégalais yi nga xamante ne réer nañ sax kenn xamul fu ñu ne mais presse nu mu jëlee nu mu jëlee affaire bi nu mu jëlee kaaw kaaw jaari sow bi man moo kontaan naa ci mais ci côté jaari sow man côté lu mu lu mu doxalee envers euh, peuple sénégalais bi xam nga man déception laa ci am quoi déception laa ci am franchement parler.